wa ma arsalnaaka illa rahmatan lil alamin wasalaatu wasalaamu ala sayid al awalina wal axirin rahmatul muhaddaat sayidina wa nabina muhammad ibni abdillah rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa radiallahu taala an sibti rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa an xalifatihi bila siqaaqin wala nisa sahibil faydati tijaniyati Mawlana Cheikh Islam Alhaji Ibrahima Niass radiyallahu anhu mbokki téléspectateur yu 2STV ñu ngi leen di nuyu beneen yoon di amaat mbégte ak kontante ànd ak yéen ci suñu plateau gàmm yi nga xam ne ñu ngi koy amal di nuyu umma islamique bi yëpp te di leen ndokkeel waaye jiital ci ndokkeele boobu ak ziara boobu Mawlana Cheikh Islam Alhaji Ibrahima Niass moom mi nga xam ne ndokkeel na boppam balaa koy kenn di ndokkeel waaye sax nee na weer bi weeram la. bu feeñee nee na maa ngi ndokkeel Ibrahima ndaxte weeram bi feeñ na euh, di ndokkeel xalifaam bu màgg bi Cheikh Mahamadou Mahi Cheikh Ibrahim Niass moom mi nga xam ne tey moo toog ci kursi boobu nga xam ne Cheikh Ibrahim toogoon na ci jiite tey lum gàtt gàtt téeméeri million wala ñaar téeméeri million ci àddina yoo xam ne ñu ngi topp ci ginnaawam mu nekk nag boroom xam-xam di firikati alquran yoroon mahad bi di directeur bi yaakaar naa kooku kenn du ko laajte ci àddina ñu ngi koy ñaanal yàlla yàggal ko fi lool ba mu mën a réaliser lépp la nga xam ne mébét na ko ci xadara bi na nuyu imaamul akbar lil xadaratil ibrahimiya imaam Cheikh Ahmad Tidiane bnu Seydi mu Mawlaaya Aliou Cissé di ko ñaanal moom itam liggéey mag yi nga xam ne mu ngi koy liggéey ci xadara bi ci jumaa ji ak ci taalibe bàyyi yàlla kàttanal ko ci dimbale ko ci ba lépp mën na sotti incha allah na itam nag ki mooy taxawu gàmm gi muy Cheikh Mahamadul Amin wakilu daad di ko ñaanal moom itam tawfiq ak taysir yàlla may ko wér gi yaram te di ko ndokkeel nag tey kontaan lool ci nim teeroo weer bi kenn ku nekk gis na ne keroog bi nga xamee ne ñu ngay séntu weer bi gis nañ ko ndeysaan muy wane mbégteem ak kontaanteem loolu nag yaakaar loo taalibe yëpp yàlla bu yàlla tas suñu yaakaar ci moom moom tam nuyu naatiqu rasmi bismil hadara euh, Cheikh Mouhamadou Mahi Cissé porte parole di ko ñaanal moom tam fan bu gudd bu ànd ak wér gëram jaar ci ñoom nuyu mbooleem taalibe Mawlana Cheikh Ibrahima yëpp jagleel nañu nag suñ papa bii ñu toogaat muy pap Serigne Aliou Cheikh Serigne mbay Niass nga xam ne waa waajuram bi fayda bi tàkkee mooy ki ci njëkk a naan yaakaar naa loolu jaratu sax ñu di koy wax ci micro ndax ñëpp ñu xam baay xam nañ loolu ci moom wéy nañ ko ci olof wéy nañ ko ci arab wéy nañ ko ci lépp doomam ji nag nekk boroom xam-xam bokk ci tànnee fi xadara bi nekk boroom xam-xam boo xam ne dëgg-dëgg lii firndeel xam-xamam téere bi gën a jafe waxuma jàngale ko de waaye def cee bind xam-xam bi gën a jafe muy miraas moom ci la taalif téere waaw kooku kon buñ ne borom xam la yaakaar na loolu doy na sëkk yàlla def ko mu dund ak mag ñi dund ak Cheikh Ibrahim xam ni mu doon dundee xam li ko yàlla may itam wax dëgg yàlla mu liggéey ci ay liggéey yi am am solo ci biir mi ak ci biti réew tukki tukki yoo xam ne day tasaare fayda bi wax dëgg tey nag ñu amoon mbégte jàkkaarloog moom mu waxtaanal ñu ci Cheikh Ibrahim Niass radiyallahu anhu moom mi nga xam ne. xalifa sayiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam la waaye xilaafa googu nga xam ne donn gim donn yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam am ay preuve ay tegtal yu koy wane yoo xam ne incha allah dana ci ñëw ak ñun ak leneen loo xam ne temps may nañu ko loo xam ne dana ko mën a jox waa addina yi xam ne ñu ngi koy seetaan yëpp Papa Serigne Aliou ñu daal di lay jox nga nuyu téléspectateurs yi nga xam ne ñu ngi lay seetaan fu nekk ci addina bi ci 2STV bismillah aouzu billahi min shaytaan rajim bismillahi alhamdulillahi wasalaatu wasalaamu ala sayidina muhammadin sayidi albashariyati jamaa alladi anzala allahu fiihi wa ma arsalnaaka illa rahmatan lil aalamin wa ala alihi wa ashaabihi alladina jahaduu fi llahi xaqa jihaadihi wa radiya allahu an qutbil maktum wa barzaqil ma'lum sayyidi ahmad ibn mahamad atiyaani wa radiyallahu an saaxibi alfaydati aluzma wa imaamiha sayyidi abi isxaaqa barakati alwaxti xalifat rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa ridwanullahi an jamii xulafaihi min xaafin ila ya aw min alifin ila ya ñi ngi sant yàlla bu baax ci bés yu màgg yi nga xam ne ñu ngi koy dundaat ci lislaam xéewal bu màggee waxtu wu xéewal beesee rek sant yàlla war naa bees te mosu ñoo nit mosta am xéewal gu mën a gën a màgg yonent bi sallallahu alayhi wa moom moo wax ne ana rahmatul muhda mu waxaat ñu ne génn na bés dégg saxaaba yi di wax kenn ne est-ce que aadama moom mi nga xam ne yàlla ko bind bind ca ca loxoom bu tedd ba est-ce que ibrahim moom mi nga xam ne xalilullaahi la est-ce que noohun moom mi nga xam ne dund na junnee at yu manqué juróom fukk est-ce que mi nga xam ne dem na ba ba darajaam xàgg ci wax ak yàlla est-ce que Moussa mi nga xam ne yàlla moo ko du bind ci roxoog roxo jóge ci moom yonent bi dégg ko génn neen lu ngeen wax ñu noppi mu ne leen Moussa ibnu Imran mi borom tawret isaa boroom injil ak seydina ibrahim ak mbooleem yonent yi buñ daje woon ak man lenn rek moo leen taxamu ci mooy ñu wax ma ne samina wa ataana yàlla ñoom ñëpp liñ indi yépp dañ doon ñëw rek pour bégle ne maa ngi ñëw kon yonentu boobu sallallahu alayhi wa sallam moo tax ñuy dajee bés yi laaj bi mooy lu waral bés bi bés yi muy yonent bi sallallahu alayhi wa luñ ci luñ ci war a amee yonent bi mu ne al mar'u ma man ahabba ku bëgg yonent bi danañ la fang ànd ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lan mooy résultat yi bëgg yonent bi ak fa ànd ak yonent bi mooy lan daraja bu ñaxandoon ak yonent bi am rek yàlla daan la ko jox lan mooy liñ nekk nii mooy lan mawlid nabi sallallahu alayhi wa muy guddi yoo xam ne guddi gënu koo màgg ndax boo xoolee at mi guddi yi nga xam ne màgg na ci yépp mooy fukki fan juróom-ñeenti fan ci tabaski ak guddi laylatu xadar ak laylatu nisfu saabaan am na layaali yoo xam ne dañ leen tànn ci at mi waaye lu guddi yooyu yëpp Cheikh Ibrahim mi nga xam ne moo xam yonent bi mu ne guddi laylatul guddi gi yonent bi juddoo moo gën a màgg mboolem guddi wax ju nekk dafa war a am dalil su fekkoon ne yonent bi ñëwul nan la xamee guddi yooyu kon ki indi loolu moo gën a màgg guddim googu moo gën a màgg mboolem guddi yi sallallahu alayhi wa lan la gàmmoo di jariñ gàmmo yoon la ci yooni daawa ilallahi tabaraka wa taala su fekkee ne niñ ko daan defee ci jamono baay ba di ko defee ba léegi daawa la ci daawa xeeti daawa yi ndax Cheikh Ibrahim dix heures la daan génn toog mooy jàng mawlid bi bu pare ñu jàng hamziya mu continuer di wax ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di xemem loo nit ñi lislaam ba julli fajar ba pare mu oo nit ñi kan mooy dugg ci lislaam mbooloo jóg ñoo xam ne mësuñoo dañoo ñëwoon di seetaan rek jóg dugg dugg ci lislaam loolu résultat gënu koo màgg fi mu nekk nii biñ demee ba nga xam ne lislaam dafa mel ni lu tumuraanke te yonent bi moo wax ne al islaamu bada a xariban wa kama bada a aw islaamu bada qariban aw wasa yahudu kama bada qariban wa fa tuuba lil xurabaay fi mu nekk nii la lislaam gën buñ demee ba nga xam ne lépp loo xam ne alxuraan aayoon nañ ko rek am na ñoo xam ne am nañ ci agrément di ko def te ne am nañ ci du droit bu foofu nag la jullit yi war a nekk benn kut la pour amee xaat drapeau islam pour jéem a wax nit ñi lan mooy lislaam ak lan lay jëriñ waxuñ la ne la nga jël jaasi walla fetal dem di fetalante ni déedéet mooy lan dañ laa war danga war a wax nit ñi li nga xam ne falsafa islaamiya boo xam ne dana dana nangul nit ñi ñu ba ba bay yu bon yooyu yëpp jëm li jëm ci lislaam bi nga xam ne moom la yàlla bëgg ci nit ñi yonent boobu sallallahu alayhi bala ngaa jëm ci lubbul Maodo foog nga wax yonent bi mooy kan yonent bi sallallahu alayhi wa yi dañ koo jiitu yàlla wax ne yonent bi mooy ki nga xam ne daf koo yónni ngir yërmande yàlla xoo yonent yëpp ci seen tur ñun ñëpp dégg nañ yaa aadam dégg yaa nooxu yaa xuut yaa suayb yaa ibrahim yaa isa yaa muusa waaye kenn du dégg mukk yaa muhammad yàlla tudd na ko ci arxuraan ñeenti wax na bu njëkk ne wa maa muhammadun ila rasulin qad xalat min qabli rusulu waxaat ne maa kaana muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin walakin waxaat ne muhammadun rasulullah walazina maahu ashiddaau alal kufaari ruhamaau baynahum taraahum rukaan sujadan waxaat ne wa bi ma undis bi ma nuzila ala muhammadin kon yàlla tudd na ko waaye dafay li walla muy xamle waaye oo ko ci turam wu rafle déedéet yaa ayuha nabiyu yaa ayuha rasulu loolu rek lañ koy waxe ci alxuraan yàlla daf koo màggal ba nga xam ne ci màggam googu kenn mës ta gis ku yàlla màggal màggal gu xem noonu màggal nit ba nga xam ne xéefar yi danañ ko ragal masira masiratu sahar sahar doxa weer xéefar yi di ko ragal loolu mooy màgg doyo màggal nga seet nag nga dox ci diggante yonent bi ak alxuraan yàlla def na ko tëskiya mooy lan yëkkati na dara jaam ci làmmiñam yëkkati ko ci bëtam maa zaaxal basaru wa maa taxaa wa maa anil hawa mu géñ ci dëkkam laa uqsimu bi hada al balad ci jamono bi mu doon dund wal asr inna al insaan la fi xusr géñ ci tagg ummaam bi kuntum xayra ummatin uxrijat linnaasi gën ci dundam bi la am ruka yonent bi yàlla màggal na ko taskiye ko waaye bi mu ba mu ko bëggee def ijmaal lépp leer mu wax mu bëgg koo tënk ci benn baat daf ne ko wa innaka la ala xuluqin yàlla màggal ko ba nga xam ne yonent yi mebetoon nañ nekk kenn ci umma bi comme fi Moussa jaar ak moom laaj yàlla gis naa ci lawhil mahfuus xeet woo xam ne dañuy mokkal seen téere yi def ko defal ma ko ci benn Israël mu ne ko ummatu Muhammad ñoo ko moom gis naa ci lawhil mahfuus xeet woo xam ne buñ bàkkaatee duñu rey seen bopp dañuy wax benn baar rek nga jégal leen mu ne ko loolu ummatu Muhammad ko gis naa ci lawhil mahfuus xeet woo xam ne buñ bu sobe taqee ci seen yére duñ ko dagg dañ koy fóot mu dama bëgg nga defal ma ko bani Israayil mu ne ko ummatu Muhammad ma ko moom gis naa ci lawhil mahfuus xeet woo xam ne dañuy mokkal seen téere bi ànd ak moom dama bëgg defal ma ko bani Israayil mu ne ko ummatu Muhammad ma ko gis naa ci lawhil mahfuus ci law alwaax yi xeet woo xam ne buñ defee benn nga bind ko fukk wala juróom-ñaar fukk wala lu xamut liwit dama bëgg nga defal ma ko bani Israël mu ne ko ummatu Muhammad moo ko gis naa ci la alwaax xeet woo xam ne duñ murtad mukk dama bëgg nga defal ma ko muy bani mu ne ko ummatu Muhammad Ahmad moo moom gis naa ci lawhil mahfuz xeet woo xam ne buñ bàkkaatee benn yoon nga koy bind buñ baaloo nga baal leen def defal ma ko muy benn Israël mu ne ko ummatu Muhammad moo mu ne ko yow yàlla dama bëgg nga jël sa yonent gi te def ma may kenn ci umatu Muhammad mu ne ko yaa Muusa inni istafaytuka ala nnaasi bi risalati wa bi kalaami fa xus ma aataytuka wa kun min kon ñun mënuñ mënuñoo wax alhamdulillah boo xam ne li eyoo sant gi ñu war a sant yàlla ci lim ñu def ci ummatu muhammad yonent boobu sallallahu alayhi wa sallam dund na ci màkka duma leen xisaal di gàmmo waaye dama lay won tawfiq ñi nga xam ne ñoo dund ak yonent bi mu judd ci seen kanam ñu xam jikkoom xam léppam yàlla deful ñu gëm yow mi nga xam ne fukki seekal ak ñett wéy na nga door a ñëw yàlla dimbale la nga gëm yonent bi defaloo ko sa bopp yàlla moo la tànn yonent bi sallallahu alayhi wa jikko bi gën a kowe la xame ci tabe moom rekk moo tabe ndax maa ngi xaybari biñ ko jóoree toog na nit dana toog kee toog fee doo ngeen gisante yonent bi di ko séddale di ko seddale di ko séddale ba mu jeex mu dem ci kër ga ne ay sa ndey sa ndax lu ma lekk amu fi mu ne ko joxooñu woon dara kooku fàtte woon na boppam benn bés ren di na benn gàtt ci këram di dagg di yónnee di dagg di yónnee di dagg di yónnee yónnee ba mu des eel yi ak bopp bi mu mu jox ko waa këram neen togg leen ko dafa tabe woon ba nga xam ne dafa meloon ni géej géej goo xam ne duus wi dafay walla géej moom lay niru nirulu géej yonent bi lay niru nirulu kon sallallahu alayhi wa sallam moo moom guddi yi li ma ci gën a neex nag inda zikri saalihina tatanazalu rahma rahmat waaw junay dinañ ko laaj ne ko inda zikri saalihina tatanazalu rahmat bu ñu tudd yàlla lan mooy lan mooy wàcc mu daanu xam waaw ki nga xam ne nag moom moo saalihiina yi moo leen defar bañ xàgg ci salaahu ba mën a jëflante yàlla kooku bu ñu koy tudd luy wàcc moo tax moom mi ngi ñu koy jegeelal ne boroom xam-xam yi seen janaax malaaka yi dañ leen di raf-rafal waaye nag loolu yépp ñu jëm ci baay ndax lan ki nga xam ne yàlla daf koo may mu xamal nit ñi kan mooy yonent bi mu wax ne xam naa ko xam goo xam ne bëgg ko bëgg goo xam ne su ma dundoon ak moom dara du ci dolleeku waxaat feneen ne falaw sawaruuni fi lxaqiqati lam yaraw si waa sax si mahbubi su ngeen ma su photokat yi mënoon a ba génne photo dëgg-dëgg bu génnee yonent bi mooy génn moo tax ba xilaafa uutug dëgg-dëgg ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi junj na ko yonent bi moo ñu wax ne al ulama warasatul anbiya mu waxaan ne inna maasirul anbiya yi laa nuurasu wa maa tarak naaw sadaqa waaye nag danañ ko donn ci maanaa inna allaha yabasu fi kulli raasi miati sana man yujaddidu lakum diinakum aw kama qaala bàyyi bokk ci kenn ci ñi nga xam ne yàlla daf leen a jagleel ñu donn yonent bi ba pare am may ci xilaafa gi ba pare xam ci najaax ndax xam na koo xam ne bés bi mu éeg ci xilaafa ak yonent bi semaine la ci dund génn àddina am na koo xam ne bam mu fóonee xilaafa yonent bi amut jot pour wax ak nit ñi sax pour dugal kenn ci lislaam waaye kii nga xam ne ba mu waxee ne is annani xalifatu tijaani mawhibatan min min ahmad al yàlla talalal ko àddina bi yëpp mu ne alfaydatu tamtaddu haysu kaana tijaaniyatu wa man araada an yunaffira naasu anhu innama yunaffsiru naasu anhu laa anha alfaydatu tamtaddu ala albasitati ay su kaana tijaaniyatu xilaafa googu xilaafa gu mat la goo xam ne dafa ànd ak ndigal wa daayan ilallahi bi isnihi wa siraajan mu ne mu yàlla may ko mu nekk xalifa yonentu bi sallallahu alayhi wa sallama ci daawa nekk xalifa yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam ci dugal nit ñi ci lislaam nekk xalifa yonent bi sallallahu alayhi wa sallama ci wiraasa zahiran wa batinan du ne ñun dañoo wax rek eh, nekk di taalibe baay gëm baay di ko ooteel ay mbir déedéet ñi nga xam ne dund nañ ci jamonoom te duñ ay taalibeem seedeel nañ ko ne moom mooy xalifa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñi nga xam ne mag ñi nga xam ne toppoon nañ ko ànd ak moom taalibee maam alaaji abdullahi seedeel nañ ko ne kii mooy xalifa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sayidi ahmad sukayri ja na ko ne moom mooy xalifa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mboolee magi faas yi say awlaadu say ta say tayib sofiaan yi awlaadu seydi ahmad banuun ganuun awlaadu ahmad seydi arabil muhibbi ñoom ñëpp ñoom ñëpp seen jamono seedeel nañ Cheikh Ibrahim ne moom mooy xalifatu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam fii ci senegaal mbooleem këri diine yi ñoom kilifa ya lañu wax ak baay bokkut ak sama classe gi nga xam ne dégguñ dégguñ liñ daan li kilifa yi daax waaye ñoom ñëpp nangul nañ ko ne moom mooy xalifatu rasulillah sallallahu alayhi wa waxtaan bi neex na papa lool li ma naqar rek mooy fi ñu ko nar a daggee moo moo métti trop waaye nga indil ñu sa kàddu bu mujj ak ndénkaane booy jox nit ñi war a ñëw gàmmu si. asalaamaaleykum. Euh, ñi nga xam ne ñu ngi ñëw gàmmoo maa ngi leen di ñaan yi nga xam ne dogal nañ ko doktoor yi wax ne nañuy takk mask nañuy laagel nañuy soreante nañ ko nañ ko sàmm bu baax boroom oto yi indi nit ñi ñu ngi leen di ñaan nañ daw ndànk te buñ eb lu bari ndax seen bakkan yi lañ war a fonk bala ñoo fonk bakkani nit ñi ñiy ñëw ñu ngi leen di ñaan bu kenn indi ci dëkk bi lu ñu xaaye buñ fi jàpp mukk koo xam ne indi na fi dorog ñu ngi ñaan loolu ñu ngi ñaan itam autorités yi nañ yërëm nit ñi waaye nit ñi itam nañ respecté autorité yi ndax koo xam ne yow yaa ngi nelaw mu taxaw di la garde kooku danga ko war a respecté ñu ngi ñaanal yàlla xalifa bi yàlla na ko yàlla sàmm wattu ko may ko najaax ak tawfiq ci yi nga xam ne moom la sëriñ bi bëgg ci dëkk bi ndax baay baay moo waxoon ne talabtukum fil ghaybi awliyaa lillahi wa samaytukum bismi habibi ba ñam tuddoon xalifa bi ci la bokk ñu ngi ñaanal Mouhamad la Cheikh Mouhamad Lamine borom gàmmo gi mi nga xam ne moom mooy wakiilu daat moom mooy ki nga xam ne fi mu nekk nii léppi gàmmo gi moom la ñu ko ñaanal yàlla tawfiq waaye nag ñu ngi ñaanal yàlla xalifatu maam alaaji abdoulaye alaaji abdoulaye mahmoud ak mbooleem xulafaa yi di ñaanal imam bi di ko ñaanal yàlla tawfiq di ñaan dëkk bi jàmm am fi senegal jàmm am fi mbooleem ñi nga xam ne ñi ngi yëngatu yàlla dimbali leen waaye nag suñ télé bi 2 yi yàgg naa ko topp xam ko bu baax lu jariñ rek moo ci nekk wala boog moom laa ci seetaan man yàlla na yàlla du yokk leen tawfiq ñi ngi gërëm ñëpp ñi ngi sant ñëpp ñi ngi ñaanal yàlla jàmm ci réew mi Sénégal yàlla na fi jàmm am Afrique yàlla na fi jàmm am yàlla na yàlla dimbali jullit yi fu ñu mën a nekk wasalaamaaleykum wa rahmatullah wa barakatu sama sama doom sama sët Abdoulaye Muntaka maa ngi leen ko gën a dénkaat ngeen gën a jëflanteek moom bu baax nit la koo xam ne ñëpp dëkk bi yëpp wóolu nañ ko baat boobu rek laa ci wax jërëjëf euh, papa Serigne Aliou Cheikh Serigne Mbaye waxoon naa leen ne borom xam-xam la arab dafay wax takalam tooraf xoolal tamhid bi fi mu jaar jaar naa nit ñi présenté leen kuy rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam wan ñu place ko yàlla teg wan ni ko yàlla taskiya bakkanam euh, euh, làmmeñam taskiya xolam taskiyal bëtam taskiya yooyu yëpp mu andil ñu ko wane ni yàlla sellalee yonent bi seetal ko wecc amul benn gàkk-gàkk waaye amul ci wan ñu yonente yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam palaasam ci kaw yonent yi ba wane yonent yàlla Moussa nga xam ne nabi la mursal la bokk ci ulul asmi ñee xeetu yonent bi pour bëgg cee bokk delloo nubuwatu gi dool delloo risaalatu gi yooyu yëpp mu delloo ko pour bokk ci xeet bii kon dëgg-dëgg sa waxtaan bi gën na tax nit ñi gën a xam ne bokk ci xeetu yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam moo gën a foor sax nag bokk ci dégg nga de nubuwatu ba ni Israël wax dëgg yàlla luy tegtale bi ki nga xam ne moo doon yónnante bani Israël bi gën a mag bokk ci ulul azmi muy Seydina euh, Moussa alayhi salaam mu ngi doon mébét yàlla effacel ko yónnantam gi effacel ko li ko yàlla jox yëpp def ko membre ci. xeet bii nii kon dëgg-dëgg loolu uh, am na lu rey lu mu def ci yi nga xam ne ñu ngi lay seetaan incha allah te yaakaar naa ne dëgg-dëgg mbégte ak kontaan li ci ñëpp am lii moo taxoon mënuñu woon ñàkk jël ku mel ni yow nga fàttali nit ñi jàngalaat ñu joxaat nga ñu ay dars yi bees ci yonent bi waaye ci Cheikh Ibrahim li ci gën a neex mooy wan nga ñu xilaafa Cheikh Ibrahim donn gi mu donn yonent bi ñi ko gën a seede ci àddina mooy kàngami borom xam-xam yi surtout ma ñi nga xam ne ñu ngi bokk ci tariqa Cheikh Ahmad Tidiane yi am na ci ñoo xam ne bokkuñ ci fayda waaye mboolem ñi bokk ci ak Tidiane yitu ñooñu dañ leen di tiitaroo dañ leen di dañ leen di ndamoo ñëpp saxalal nañ ko ak la xilaafatum yàlla ñu la yàlla fayal kon mbokki téléspectateurs yi mu ngi noonu nii rek la ñuy def ak yéen incha allah fii ba incha allah gàmmu ga di jeex ba gàmmuwaat yàlla nañ ko fekk ak jàmm jaajëfal Cheikh Abdoulaye Mountakha waaye suñ caméraman bi Sidi yàlla yàlla defal la tawfiq aaj Ndiaye directeur gërëm nañ sant ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh jaa ngeen jëf لاح هلاله هلال بدا للنار ظرنا جماله هنيئا